professeur Mané ak Boy Diop professeur Mané dox na ci xeex nañu. professeur Mané. daw na ko daan na ko paquete na ko daan na ko. professeur daan na ko. professeur Mané jàngal na ko.